والقلم وما يسترون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 asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. bi ni'mati rabbika bi majnun bâtiment plus import export si Touba mbokk yi ak si ngeen lépp lu ngeen itteewooti si wàllub caro import caro ba gën caro ba nga xamante ni moom la ñuy itteewoo si mbooleem àdduna wërngal këpp jàpp leen ay caro yu ñu importé ba Espagne Italie Chine si dëkk yi gën a mag mag ñu ràññee leen si wàllub liggéey caro dama ni mbokk yi bu ngeen ko itteewoo si même réew bâtiment plus import export du ca morom waaw ñoo leen yembal ay caro sol faïence Italie ay grès céramique ay faïence espagnol ay sol grès italien 40 sur 60 ay grès poli italien sur 60 carreaux de haut ay grès italien tout genre venant d'Espagne 25 sur 40 sur damani am nañu ay produits jóge Inde 25 sur 37 wala yeneen gox si àdduna wërgal këpp ay faïence pour seen cuisine bu ngeen bëggee mu taaru rafet loolu bâtiment plus import export ak sina moo leen yembal ngir seen taaruwaañ 25 sur 37 lépp mu ci waaye nag mbokk ñëw leen ngeen découvrir sunu ay lumière am nañu ay ay ay spot sol escalier seen salon fépp fu ngeen mën a bëgg si biir kër gi bu ngeen bëggee lumière ca kaw kaw ca kaw mur ba ak si leen bâtiment plus import export mi ngi si Touba Daaru Xuduus jàkkaarloog marché bi Maktabatu Touba Daaru Sam si Touba Daaru Xuduus mi ngi si yoonu Daaru Muxti mbokki taalibe yi bu ngeen fi accès fekk fi Baye Serigne lay moo leen yembal lépp luy jumtukaay ngir ngeen jaamu yàlla ngir yokk xam-xam ngir seen i gëstu dama ni yemb na fi alquranul karim ulumul quran ulumul xadis am na ay téere xam yu wute ay fiq tawxid tasawuf ngeen bëggee taarix histoire wala géographie lépp fi yemb ay téere xam-xam yi mag ñi bind bu ngeen bëggee ay téere version anglais français lépp a ngi fii daal ci Maktabatu Touba Darou Sam ay téere Serigne El Hadj Mbacke borom xam-xam bu mag ba def ko si wolof di waxe Serigne Touba mboolem téere Serigne Touba yéen a féere si wolof ak it ay xasida yu Serigne Abdourahmane Mbacke Maktabatu Touba Darou Sam mbokk yi yemb na fi lépp lu jumtukaay ngir jaamu yàlla ay kurus sijjaada ay yëre yiw jàllabi yu baax a baax cuuraay nag fi la fekk baax ci mondial pizza lu ngeen namm rek jot ca mbokk yi ñu ngi nekk fii ci quartier Touba gare bu ndaw virage Ndamatu angle Sëñ Fallou ci garage yu taxi yi ana loo namm wax ma loo namm ci pâtisserie wax ma loo namm ci fast food wala épicerie wala dibi bu tàng jër di saxaar wala boucherie wala boog gâteau anniversaire yapp bu ñor wala ndawal lu ñorul loo ci bëgg kaay ma wax la mondial pizza ngi noonu mondial pizza waa Touba yëpp dañ cee fier ana boisson boo soxla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 suñu boroom nee na ku ko def dana am yat ba yent ku teg tànkam ci taqwallah bu mu tiit ci dara mbir mu dugg lu mu xat-xat dana ca génn ku sax ci taqwallah itam lu mbir jafe-jafe ci aw nit dana yomb ci moom waaye ku sax ci taqwallah nag ëllëg bañ ko gënee soxla day jël farukaayam ba nga xam lu mu ca far kenn dootu ko bind na tareet faral kooku teg tànkam ci taqwallah mboolem ay rëcc-rëccam boole ko bind mbind mu dijj lu mu defoon ci ay benn benn yu baax mu yokkal ko yàlla insha allah boole euh, di fàttalante ne ñu ngi ci jaamu yàlla foor ku kawe goo xam ne fi mu ñu jëmee mooy bis boobu ma doon junj léegi suñu borom wax ko ci alxuraan nee na bis dina ñëw yàlla wax ak nun nit ñi ak jinne yépp moo ne woon fii wa maa xalaqtul jinna wal insa illa liyabudun muy bis boo xam ne dana jàkkaarloog nun ñépp nañu xanaa du yéen ñii laa doon waxal jaare ko ci ay ndaw yoo xam ne lu nekk nee nañ leen yàlla nee na wan leen kawteef gu nekk di leen wattandikuloo bis bii saa bu agsee ngeen am caw lay ñépp na xiim mu ne ku ma tontu moo tax may laaj moo ne li muy laaj moo leen ko gën a xam ñu ne ko aha xamoon nañ ko xel bëgg a joxoñ àdduna mooy leen déedéet ku ko joxoñ tooñ ko de ndax lu ngeen fa soxla woon rek man nga fa woon ak yéen yaa ma'shara jinni wal insi alam yatikum rusulun minkum yaqussuuna alaykum ayaati wa yundiruunakum liqaa yawmikum hada qaalu shahidna ñi ngi lay seereel na ay yónent ñëw nañ ba tàyyi wax ba tàyyi ñu fet lànk lu mu wax tam dëppoo ak suñu bëgg-bëgg ñu ne ko sa daqta lu mu wax bu dëppoo wut ak suñu bakkan ñu wan ko gannaaw topp suñu bakkan wa xaratumu la xayatu dunia adduna ngi leen wor ci xëccoo wuti alal wuti ak pal wuti ak ndomba ba tëluñoo jaamu yàlla te lu ñu ku leen di wax yàlla nee na saa boo yàlla leen da leen di foton xal ku toppul yàlla rek ku muy topp seytaane wa shahidu ala anfusihim annahum kaanu kafirin ñu mu ñu seere yàlla ne ko wax dëgg yàlla am wax nañ ñu ba tàyyi waaye ñoom féttoon nañ lank nañ ñoom yan ci yàlla musal moo tax suñu borom ne balaa teg nit ñi jenn fitna ci dana leen yónnee ay ndaw ba tàyyi ku bëgg a dégg-dégg ku bëgg a gis jës ku bëgg a làmb-làmb waaye nag buñ ñu demee ba cëgg desatut ci góy mu jëfandikoo coobagan dalika euh, an lam yakun rabbuka muhlika alqura bi zulmin wa ahluha gafilun faw dana leen yónnee ay nit ni ñoom ñu xam leen xam seeni bokk am ci ñu jëflante ñoom sax jëflante gu leer ku ci mel ne rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam waaye taxut ñu dellu gannaaw ñu nga fëx wutali sawara yan ñu call musal wa li kullin darajatun ma amilu bu ëllëgee nag kenn ku ci nekk ak wàccuwaayam ak darajaam ci kem nam doon jëfe fii ci àdduna suñ jalee lu ne gàññ lu rafet moo ko moom waaye suñ ko jalalee lu ne gàññ mu tiim ko it ba mu di ca keru itam ci ab safaan it moo ko defoon yàlla ne ne leen wóor na lii ngeen di def dara ump ko ci daa yor ba gii jal ëmbal ëmb yërmande kese waaye su ko sooboon lànk gi ngeen ko lànkal mu jële leen fi indi ñeneen nii mu fi jëlee ñeneen indi leen fi wa rabbuka alganiyu du rahma in yasha in yasha yudhibkum wa yastaxlif min baadikum ma yasha kama anshaakum min durriyati qawmin axarin ñaata yoon lañuy dégg man samay maam xeet sàngam lañ waaye man nàngam laa léegi moo yastaxlif min baadikum kama anshaakum min duriyati qawmin aaxarin ni mu fi jëlee ña fi jiitu ba ci suñu maam yu yàggut yii indi noonu la fi jëlee ñu nii ñëpp yóbbuwaat fi yóbbu ñu indi fi ñeneen ñuy wax leneen di def leneen waaye ñun ñëpp nag nañuy maas a xam ne innama tuuaduuna la aatin lu mu digee ñu jëkk ñag ñu mujj ña lañuy ñuy jiitoonte lépp la mu digee woon ma nga fa toog di xaar ñëpp fay dajandoo benn bés wa antum bi mu'jiziin kenn mënu ko raw daw taxu koo raw moo tax mu ne cell rek ndax nee nañ sàcc bu dul raw jërut yàqi na law moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy leeral lenn ci aayaat yooyu ba mu gën a jege ñépp nangul nañ ko ne li muy wax du coobareem ndax saa su nekk ñu gis ne xam-xam yu yees yi day gàcc ci mbir dem xool ko ci alxuraan gis ko ci yonent bi sallallahu jamono ngi dikk ña bàyyi xel bis boobee fop muñ def ko seenu seen waruwaay dana tàng ci ñoom ba mel ne dañoo yor xalu sawara muñ da dégg sax ñu naan la muñ moom boo ko déggee du lu neex ah kay ah kay muñ lu neex loo xam ne dara duxu sa digganteeg moom kenn duxu sa digganteeg moom nga muñ ko te yàlla tax alal bokk na ci ak mboolem yi nga xam ne nit ñi dañ koy wuti di ci xëccoo bëgg caa jot nga mën caa jot muñ ko waaye nee na ku war daa bay muñ toogaay bi dana tàng tàng boo xam day mel dañoo fab xelu sawar teg ci sa loxo yaati ala naasi zamanun assaabiru fihi kal qaabil ala al jamr waaye nee na jamono gi dikk joo xam ne jullit yi sax seen bopp kañ yi tànn mu di leen jiite dana jafe ndax saa bu génnee diw ne xanaa du kii nangam dana am lu ñuy wax lu xam am ñoo xam ne du ñu wax lu xam ba sax dañ naan far amatuñu référence référence boo ko déggee mooy ku ñu roy rek ak a bari xanaa ko gisut wala bëgg koo gis waaye wax yent bi sallallahu alayhi wasallam du taxu mukk jamono ngi ñëw ñoo xam ne danañ bëgg a julli bëgg a gisal nit mu tëleen ticc ndax ku ne ci dana xool ay tànkam kii xool loxoom ya kii xool gémmiñam nga ba xam lu mu lekk kii xool gëtam yi ba xam lu mu doon xool kii xool di noppam yi ba xam lu muy dégg waaye nee na jamono ngi dikk joo xam ne ñu si bari ci nit ñi seen yitte seen biir dong lay doon bawut dara nag biir nag bawut dara yati ala nnaasi zamanun himmatuhum butunuhum waaye jamono gi ñëw joo xam ne ñii mucc ci lekk lu lew lu lewut bariwut ñiy mucc ci lekk lu lewut bariwut benn mu dem wuti wala nit wuti ko mu xam nam ko amee xel mu jox ko mu ne pat yaati ala naasi zamanun yakulu yakuluuna kulluhum riba waaye nee na jamono ngi dikk joo xam ne kiñ ñu naan moo yilife day mel ne ndogment ndogment buñ ci jëlee ku mel ne mbëtt mi wolof yi wax ku jafee nekkal lay doon soo jaaree ci kanamam mu ne yaa ngi jël sama gunóor yi defe ne gunóor moom rek moo ko yeyoo boo toppee ci ginnaawam am na luy lang ci ginnaawam buy dox mu ne yaa ngi may jog cat la ku dend ak moom da koy koy na jar walla càmmooñ mu ne danga maa def moroom bëgg la sàkkal tax kon jamono jafe la am na ci kilifa adduna yi am na ci kilifay diine yi يأتي على الناس زمان يكون السلطان فيه كالسباع te àll boo xam ne ay ashbaax ñoo fa nekk la fa xew mooy ku ëpp sa moroom rek wan ko ko ku ëpp sa moroom doolee wan ko ko léeg nga gis ci lu daw yaram léeg nga gis ci daaba joo xam ne day soog am doom ndong ment di ko yoot bëgg jël yaay ja wala doom ja te moo ne yàlla ngi toog di gis waaw benn bis ci ay riwaayaat yu daw yaram suñu boroom laaj na malakul mawti ana bis yi nga xam ne saw yaram daw na ci nuñ koy déggee ñun malaaka moom du yëg dara waaye ñun lay dàngal kattanam akub digéem mu ne ko bis bi am na bis boobu yaramam daw na daa am jigéen nit nit jigéeni nit ju wasin nga ne ma demal jëli ko bàyyi fa liira ma yaramam dawoon na lool ku koy taxawu ci àll bi ku koy yor yàlla <coughs> mu ne ko ak ban mu ne ko bis bi nga xamee ne yónnee nga ma buur sàngam mi ngi wàcc junjung yi di rëkk ñi koy teertu di ko nekk ñi koy tàccu di ko tàccu nga ne ma demal yël li ma ruuga xalaat naa ko lool mu ne ko ndax la mu ne ko xam naa dara jaam jaag yaakaaram ja rek mu ne ko gis nga gone googee ma la jëlloo ndeyam moo màgg ba doon buur ba lépp ci loxo yàlla nekk kon boog waxe yonent bi du dañ mukk saa ku yàgg da ko gis jamono gi ñëw yoo xam ne kilifa day mel ni ndogment xamul yërmande xàmmewul rey doom ji soog a judd léegi ak rey ndey ji ko jur léegi kum ci am baax na waaye bu ngeen gisee nit ñi faaleetuñu alxuraan génnetuñu asaka ku am pastos bu dëgër bay boo nga wàcc fexe ba buy ñëw yow fekk la ci lam la war a fekk la taqumu saatu xata yurfau zakatu wal quraan boo ne alxuraan nee na ñu la réew mi alxuraan attewu fi ndaw ndaw musiba te kat ki koy wax day mel dafa gëm alxuraan bu attewut kuy atte ab jullit waaye nee na da gis ci mu jóg ci kanam tuuti jamono joo xam ne boo ko gisee bay boo nga yow nga fab say dàll foo jaar rek ña ngay jaay ak a jënd xam-xam teguñ ko fenn dangay ngay dégg ñuy wax ne sax ku xam ku jàng lu mu gis xam ko waaye kuy liggéey lu mu bëgg am ko gis nga kuy liggéey kooku liggéey bi dana toll foo xam ne faaw mu jëli ko xam jëmmi liggéey boobu sax xam-xam la jëmmi liggéey bi ci moom xam-xam moo tax nit mën ko def waaye nag saa boo gisee ñu néewal doole xam-xam saa boo nee xam-xam ñu ne ah ah waaye leneen lu dul xam-xam nañ wuti nangam nañ dem fii nañ dem faa ñépp jóg taxaw nga dem ba ne lii laa mën a jël nee na su boobaa bàyyi yow mi am pas-pas booy ba nga fab say dàll te xam ne innama tuaduna la aati waaye nee na saa boo gisee buñ naan diw dafa dëddu àdduna diw daa dëddu woon àdduna faale wutoon àdduna mu mel ni ay léeba ki lupp nee na yow nga jël say dàll yow waaye saa boo gisee koo xam dañ naan daa sàmm it sàmm nga kat dafay def def lu nii dong ndax bëgg ñu di ko waxtaane kese waaye du romb dara lu ñuy lekk te lekk ko fasu ko yéenee lekk du romb lu ñuy sol te fasu ko yéenee sol du romb lu ñuy naan te fasu ko yéenee ubbi saañ ba ba xam lu si nekk waaye li muy wane ci kaw mooy ak sàmm gu leer saa bu jàpp yàggee rek nee nañ nga war feeñ laa taqumu saatu xata yakuna zuhdu xata yakuna zuhdu riwaaya wal waraaw tasannu kon jóg jot na topp xew-xewi jamono ji am na solo waaye ba yàlla naan xalaqal insaana min tiin summa jaala naslahu min sulaalatin min maa in mahiin tumma sawaahu wa nafaxa fiihi min ruuxihi wa jaala lakum moo seet ni ko soob mu binde ko nit seet ba mu neex ko mu binde ko noona waaye daa am lu mu koy liggéeyloo lu lu nekk daa am tax ñu defar ko am na ko doon joxe misaal naan yaar la waaye benn bi lay jël tey daf ne la ji falilu nee na muñ moom suuf la ci jël misaal man yaa déggu na ko la ji fal la wax waaye suuf lii mu def ñu ne dégg du ak muñam loo tax yàlla bind ko alladi jaala lakum al arda firashan wal arda dégg ji ne dégg nii loolu moo tax yàlla sàkk ko mënta bañ xamut luy bañ sax mi ngi mel na tapp yi ñu lal ci biir néeg yi rek lal ko fa di ca jaaraka dem ak dikk moo tax ñu def ko fa du ak muñam nit itam daa am lu tax yàlla bind ko mooy mu jaamu ko fi yónni na lu ëpp téeméeri junniy ndaw seen yónent googee jeexu tàkk ni aw rëdd wuñ far déedéet yónent bii di rasulullahi sayidna muhammad sallallahu alayhi wa moo boole lépp mu mat sëkk ku bëgg a jub ku nekk mën ngaa jub tegu ci yoon wa ku bëgg a jaar feneen nit moo ko tànnal boppam waaye aw lay ëllëg moom du yomb innama na la aj kon weeru koor waa ngi nii bëgg a sori rikk ku umutoon na um gis nga bis yi jàll du ñëwaat ci àdduna du del siwaat mukk bis yi jàll nii jeex na du ñëwaat ku kum ci kum raw raw na la jeex na lu mu ca defoon jeex na yeneen yi bis lay xaaraat ci geneen koor waaye koor gi moom dem na te du ñëwaat fu mu ñu jëme innama tuaduna la aat bis boobu nag bokk yi yàlla dana fa àtte aw nit ñu sant lool àtte ba kat mooy lii yaa ko fi dawaloon yaa ko moom am am fa ñooñ bu ñu sañoon kenn du dégg seeni tur ndax am nañ gàllankoor ba noppi gàllankoor aw nit toppante ba leen ñooñey topp day doy sëkk fitna dañuy dem ba ne ak a neexoon yàlla suturaal ñu dugal ñu feneen te ñu mucc ci njàmbat kon boo kenn ku ci nekk ak fam toll na fexe ba kam war a digal mu digal ko kam war a tere mu tere ko te nekk ca nag ay ci lañ ñu dem te bañ a wax dem leen maa ngi dikk dem leen maa ngi dikk la ko ci waxoon moo ca moo cay am ba mu ne ba ko buur nee danaa la wax loolu amul te danaa la yónni dana ko yónnent bi sañ nga ko booyee buur te xam nga ne di tiiñal ñim yilif danaa la yónni danaa wax loolu amul mu ne ko yónni gi suñu mu ko bañ ndax yawee buur nee na ñeey te moo ne am na buur boo xam ne kat aw yow dong moo taxaw ñu dagg boppam yooyu dañ koo sonal am dugg ci nopp bi mu woo technicien yi ak conseil yi na leen wutal leen ma beneen nañ ko wutal beneen bopp ñu defar bopp ba mu ne bii da baax na adduna war na ko yawa yawa war na ko mu xëy woo ko ne ko ñëwal dem dëkk sàngam ne leen maa ngi fay ñëw fekk ne woon na ko ku ma yónni ma yónni la doon tey way buur nag ku bi mu koy yónni nag ne ko ñëw demal ci dëkk sàngam ngi fay ñëw mu wàcc dàll bi mu wax mu ko buur baal ma jox ma sama dàll bi ko koy jox mu dem ca dëkk ba ne leen nee na mi ngi fiy ñëw nee na wenn benn tànk baa nga ci kaw dëggali façon benn baa nga ca suuf xamuma nag ba ca kaw mooy fekk bi ci suuf mu fomm xawma bi ci suuf mooy fekk ba ca kaw mu dikk foofu lañ fay jànge mooy kenn ku nekk di xool fa muy teg tànkam ak la ëllëg la buur boobee ak kocc tey dong la ci pénc ma dong la yam agul donte lu ca baax naa dem àllaaxira lu ca mel ne ne day dem àllaaxira ñu toog toog ba ngoon ñu ne ka nga doon wax ñëwut mu ne kon ba ca kaw moo fekkee ba ca suuf mu fomm dellusiwaat mu ne ko wax nga lu amul di ko tiiñal defe na ne moom lu mu wax rek dëgg lay doon loo wax dëgg lay doon del wax alxuraan rek mu ne yaa ne woon dëkk ba maa ngi ñëw te ñëwuma mu ne ko déet xawma ku wax lu amul de waaye du man ndax bi ngay dem dama fekk sa benn tànk ne ci kaw benn bi ne ci suuf xawma bu ci fekk morom ci daa leen wax xawma bu ci fekk si morom ci bu fekkee bi ci suuf moo fekk bi ci kaw dana ñëw bu fekkee bi ci kaw moo fekk bi ci suuf moo fekk bi ci kaw dana ñëw bu fekkee bi ci kaw moo fekk bi ci suuf day fomm xawma bu cay fekk morom ci mu ne ko yónni na la te yónni woo mu ne ko sam dàll bi ku ma ko jox bi may dem kon boog koo xam ne loo wax ñu ne dëgg la del wax alxuraan yam ca rek waaye leneen loo wax boo ko seetu lool lool lool layoob adduna bii sax day ñëw sakkantuma bu àllaaxira te innama tuwaaduuna la aatin wa ma antum bi mucjizin baraka allahu lana wa lakum fi alqur'an alazim wa nafaana bima fihi jamian bima fihi min alayati wa dikri alxakim yaxfirullahu lana wa lakum wa li saa'iril amin ma ne lépp loo xam ne épicerie da koy jaay fekk ko mondial pizza mondial pizza daal macha allah mondial pizza am na équipe bu dynamique bu jàmbaare am nag ay cak-cak yoo xam ni loo commandé ñu livré la ko ngir gàmmu cant mariage anniversaire décoration dressé la sa table dalal la say gan daa di lal ba lépp mat ngir say gan ma a kontaan ak ay njëg yoo xam ni macha allah waaye suñu ginaar fexeel ba bu ko mos boo mosee suñu ginaar da ngay ñëw rang mondial pizza ndaxte mondial pizza benn lañu fi lépp lu ñuy defar ci xeetu neex-neex xeetu xewal xeetu berde ñëwal mondial pizza jëlal suñu téléphone dañuy ubbi 7 jour sur 7 8 heures ba 3 heures du matin 77. 409 44 44 boobooy numéro bu baax bi 77 409 44 44 رسول الله mi ah mbokk yi nee naa lumière décoration ngir seen chambre seen salon seen balcon liñ la si defal amul fenn waaye nag ay ventilation assortie de luxe ah xanaa nag moom lii lu bees la dama ni tàq ma ni ay miroir seen salle bu ngeen bëggee ay meuble de salle de bain si anam yu ayib ay lavabo commode miroir led da laal rek mu tàkk lii nag moo xarala dama ni du kenn ku dul bâtiment plus import export évier si mbooleem xeet waaye nag baignoire deux personnes ba si une personne mbooleem xeetu robinet ngir seen salle de bain ngir seen kër seen waañ fépp daal si biir kër gi robinet yi yemb na waaye nag réservoir cinq mille litres ba cinq cent litres neex lay doon bu ngeen bëggee nag peinture le numéro peinture peinture canadien ya gën a gën a gën baax loolu ngeen di peinture avec étanchéité bâtiment plus mani moom la ñëpp di wër ndaxte li leen indil si ay matériels yu xarala nee naa la suñu ventilation si mbooleem marque am nañu ay windi 90 ay kulom tom kulom tom 140 120 ak yeneen xeetu produit ay cabine douche chauffe-eau nag waaye nag ba ci gën a neex mooy automatique léegi la ndox mi di tàng même pas une minute ah mbokki Sénégal mbokki Touba ñëw leen ngeen marché bi bu ngeen fi accès jàpp leen lépp luy carreau sanitaire lumière peinture duñ ca morom boole nag mbokk yomb ma tax ma ni bâtiment plus import export notre force c'est la qualité. wal qalami wa ma yasturuun